salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba nu leen nuyu di am contentement ak mbégte jan ak yéen saa su ne ngir indi leen li gën fas si bopp xibaar yi laataa loolu nag damay nuyu ki ma toogal tey wéet naa lool nag waaye Assane Waalo nuyu la. Ndeye Mbacke maa ngi lay fay wax nga dëgg wér nga mbay nekku fi tey mais maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ak ñoom. samedi 30 janvier 2021 fas yéene indi li gën a fas ci bopp xibaar yi suñu làmb xëy ci xëtam bu njëkk 3 ans d' absence Tapha Tine risque gros contre Boy Niang 2 suñu làmb nee na ginnaaw ñetti at yim toog bëréwut su lancee ci li nga xam te ne mooy diggante mag doomu dégul boobu noonu tafaante dina dugg ci saako yi wax nga dëgg Ndeye Mbacke Tapha Tine joue contre Boy Niang 2 noonu la ko journal suñu làmb waxee lu tax mu wax ko nag mooy Tapha Tine depuis trois saisons ngi nii saison blanche lay def dernier combat bi mi ngi ko amee woon 1er janvier contre 2018 contre Yékini Junior depuis loolu nag tegale na trois saisons blanches loolu tax euh, suñu làmb ne euh, Tapha Tine euh, risque gros contre Boy Niang 2 technistique itam ne Boy Niang benn adversaire la boo xam ne nii bu tout terrain la ci terrain yëpp la man mën na bëre mën na xeex mën na mën na mën na lu nekk mën na ko ci combat bi teg na ci itam ne Boy Niang benn adversaire la bu hyper danger la te amul benn complexe ci poids lourd yi loolu tax journal suñu làmb xëy titré nii tey Mbacké combat bu mag la Pape Thialis Faye moo ko tëgg DG de Leewtoo TV dañu jàll ca keneen ka année blanche muy Sa ak Elton les deux potentiels adversaires de Forza Sa Thiès ba mu jógee ci defetam bi nga xam te ne moom la ko Boy Niang 2 daan toog na un def année blanche Forza aussi ba ko Reug Reug daanee defet la la toog suñu làmb nee na adversaire am bu potentiel mooy Forza maanaam ñoom ñaa ñooñu mënuñoo baj nga xam te ne mooy Forza ginnaaw ba mu toogee dëgg la Ndeye Mbacke noonu la journalu suñu laamu dikk nee na Sa ak Elton daan ñoom ñaay ñoom ñooy les deux potentiels adversaires de Forza nee na Sa Thiès euh, Boy Niang 2 moo ko humilié woon le 11 mars 2018 alors que Elton euh, Reug Reug moo ko humilié woon depuis euh, le le 31 mars 2018 loo tax daal journal bi ne. Sa Thiès ak euh, Elton ñi daal ñoom ñoo war a dajeek Forza ndax Forza nee ne huit ans ngi nii muy dajale ay victoire amul benn yoon défaite te am na quatre victoire de suite yoo xam ne nii da koy tegale euh, mais nag euh, gëj na ci làmb ji moo tax ñaar ñaa tamit am na ay difficulté loolu tax journal suñu làmb ne Forza ak Sa ak Elton daal ñoom ñoo war a dajeek Forza pour que ñoom ñëpp ku ci gagné relancer war sa carrière CRG Kaolack Mame Cor Faye las ses premiers mots relever le défi quels que soient les obstacles loolu la koy wax. maam Cor fay moom mooy le nouveau président du CRG de Kaolack moom laan fa tap moom moo moom moo wuutu Bira Sène ci poste boobu ban ko falee ba pare nag suñu laa mu jox na ko kàddu moom mu ne day relever défi quel que soit obstacle yu muy ja janool da koy relever. nu wax na itam bi nu ko falee contentement bi mu ci am mais nee na am na espoir pour euh, li ñu ko euh, yenn mu àttan ko ba jëfee ko ni mu waree. wax na également nee na du gan ci milieu bi ndax nee na 40 ans mi ngi ci milieu làmb kon xam na ko bu baax sant na fa itam Bira Sène nee na Bira Sène la icône la ci monde sportif bu Kaolack. coopérative d'habitat organisa organisation de gala l'association des sages dévoile ses grands projet l' association nationale des charges de la lutte Tafa Gueye jiite ko samedi bi passé nag doon doon def benn assemblée générale mais assemblée générale boobu ci whatsapp lañ ko defee ndax Covid bi moo tax. après assemblée générale boobu nag euh, kii di may sa Diaw di Boy Kayre Euh, wax na euh, waa suñu làmb lu ñu fa tënk li mu fa wax moom mooy li taxoon assemblée générale mooy que ñu ñaax euh, membre yi pour que ñu gën a cotiser nee na nag cotisation yi bu dee da dëkk foo xam ne nii du Sénégal yaa ngi war a teg ci année bi cinq mille francs bu dee Sénégal nga nekk nekk membre mille francs rek lan la laaj ci année bi wax na fa itam projet yi nga xam ne nii association boobu mi ngi koy dëgmal nee na bëgg na ne benn projet coopératif de l'habitat bëgg naan également di tëgg ay gala pour que ñoom ñu am suffisamment d' argent pour mën a euh, dox ci wàllum social seen association bi day jàppale koo xam ne nii feebar nga wala nga nekk ci ay difficulté te nekkoon mbërëm démb championnat d' Afrique tournoi Tokyo Lions et Lions du Sénégal en avril fee ca Maroc ñu leen di xaar ñi war dem joŋante ji foofu noonu loolu lutte olympique la Ndeye Mbacke Lion yi mooy équipe nationale bu Sénégal bu lutte olympique góor ni comme jigéen ñi dañoo war a participer ci jamono yi di ñëw ci championnat d'Afrique waaye également ci benn tournoi qualificatif aux Jeux olympiques euh, tournoi boobu ak championnat boobu mi ngi amee nag ci benn dëkk bu naan El Jadida El Jadida boobu ci Maroc la nekk. nouvelle équipe du CLG de lutte de Kaolack Mamkor Faye président jusqu'au 7 avril 7 octobre 2022. dëgg la bi après bi ma euh, wuutoo Bira seen ci boppu CRG bu Kaolack Mamkor fay ak équipe am na nañ mandat seen mandat bi mu ngi war jeex le 7 octobre deux maanaam 2 ans pour 2 ans la leen fal waaye nag suñu làmb présenté na fa bureau bi bureau bi nga ñi mbokk ci bureau bi yépp indil na leen seen tour ak seen waaye nee na lu ci bees moom moom mooy bureau boobu. benn jigéen dañ daf ci daf ci daf ci bokk loolu c'est une première à Kaolack jigéen gi nag mu ngi tudd Astou Kandé moom mooy trésorière adjoint moom lañ ko fal wax na itam entrée ci bureau boobu cuuc cuuc benn ancien lutteur la ñu xamoon ko bu baax nee na léegi moom bokk na ci bureau bi en tant que conseiller lañ ko nommé. Mhm. la leeru mooy CRG bu Thiès les choix des les choix de l'inspectrice pas encore validés. ginnaaw bi Kaolack euh, falee seen nouveau président Thiès moom ba léegi. affaire yi dafa euh, dafa euh, dafa dafa dafa dafa yéex ba léegi euh, falagun ko waaye nag inspectrice bu fa nekk inspectrice des sports mu tudd Marie Pierre Ndiaye moom def na ay choix ba pare choix yooyu ba mu ko defee daf ko jébbal gouverneur bu Thiès bu fa nekk mu tudd Moustapha Ndaw Moustapha Ndaw mii nag ci moom la affaire yi yéexee ndax ba léegi nee nan validé gu choix bu inspectrice boobu def li tax nag validé gu ko journal bi nee ne moom Covid bi moo ko tënk moo tax instant yi talagut affaire làmb ci loolu Thierno Ndiaye ak Babacar Diop ñu ngi xaar ki nga xam te ne mooy avis gouverneur bi. dëgg la inspectrice bi euh, Thierno Ndiaye la jël ak Babacar Diop comme les potentiels euh, successeurs de Maysa Ndiaye sa Ndiaye moom moo fa nekkoon président léegi mu ngi ci CNG bi. Mhm. léegi daa bàyyi poste boobu ñaar ñi nag. ñoom lan fal ñoom lan euh, moom la inspectrice bi choisir pour que kenn ci ñoom. Mhm. remplacer Maysa Ndiaye léegi nag ñoom ñi ndax euh, Moustapha Naam di gouverneur bi ba léegi àddoogul te feeg àddoogul rek dara du sotti. ka yéeg ca ministre ba mooy Mame Balla 1 Mame Balla 1 par Matar Ba hier. dëgg la Mame Balla 1 xam nañ ko mu nekk ci Pikine mbërëm Pikine démb nag Matar Ba daf ko dalal. ba mu fa demee ma ne nee na Mame Balla ba mu paree ci dalal boobu wax naa waxtaan ak journal suñu làmb nee na Matar Ba xëyir na ko. dalal na ko waaye également waxtaan nañ ci waxu làmb waxtaan nañ wax ci waxu làmb waxu ouverture saison bi également waxtaan nañ ci waaye nag mu ngi remercier Doudou Ndiaye ko Doudou Diagne ko nee na moom moo yombal daje boobu yëpp. Euh, Adama Diop estime que la saison est ouverte moom ci kàddoom yaakaar naa ne làmb ji ubbi na xelu gars yi war naa mën a dal. Adama Bopp moom mooy porte parole bu CNG ñëpp xam nañ ko bu CNG defee réunion ba pare moom mooy jàkkaarloo journaliste yi wax. Mhm. démb nag journal suñu làmb dañ ko dalal daf ko dalal ba xam ne ne. journée euh, saison euh, présente bi ni ubbi na bu yàgg léegi lu ci des kay. mooy ministère bi jël euh, dogal pour que ñu démarrer compétition yi waaye saison bi moom démarré na te loolu sax nee na moo tax ñu invité ki écurie yi ak école de li yi. ñëw renouveler seen licence pour que bu ministère bi joxee ndigal rek ñu mën a démarrer combat yi. na ministère bi joxe ndigal yaakaar lii xeeñ xaw naa neex. Mm-hmm. loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar suñu làmb Euh, Assane War looy tàggatoo maa lay remercier Ndeye Mbacke comme d'habitude di remercier waa Linguère di wax Babacar na mu nan ko. <laughs> maa ngi jaajëfal équipe technique Leewtoo TV ah Mansour loo filmé lu baaxul bëgguma Ousmane bégg naa la. Miss <laughs> Miss Abdourahmane kontaane naa la bu baax vraiment bégg naa la Maysa kontaane naa la di nuyu suñu infographe boobu. Mm, Ousmane comme nekku fi tey Mbaye Babacar sama laqale bi namm naa trop ci moom beaucoup manqué ci nuyoo bi dañ jiital jiital ki nga xam ne mooy DG moom mi waram baboor bi ah Pape Thialy Seye di ko saf di ko gërëm ndax ginnaaw yàlla moom la su dul woon moom kon duñ toog fii di wax di jaajëfal mbokk internet Leewtoo TV yépp gis nañ commentaire yi kontaan nañ ci yéen waa parcelle bëgg naa leen jaajëf